Eumeu Sène daan na jël bu amul benn warante kii di Sa lamb làmb ja nag la ca jaaxal gars yi mooy bari na ay mystique yu ci amoon maanaam ay xon niñ ko mën a waxee ci wàllu wolof Sa Thiès ngeen gis ko noonu mu gàddu saak bi takk ko di ab odo mu mel ne élève bu doon jàngi waaye loolu lépp yaakaar naa ni ba mu jàngee ba ñëw fekku fa euh, mburu mun ko dencal ci 10 heures ndax daanaka Eumeu Sène da koo nappaaje daan ko jël boo xam ne comme niñ ko waxee amul benn werante làmb jooju nag ñu mën cee Ah, gis ni eh, mbetteel am na ci ndax ñu bari jàpp na ni Sa moo gënoon a féete ndaw àndoon na ak Balla Gaye donte Balla Gaye ñëwoon na pour def ab eh, li lee di signature waaye loolu lépp teewul ci expérience ak xel jàpp na ni eh, xelal na ko bu baax a baax te it daanaka làmb joojee ni ñu ko gisee bariwul fu ma paree ndax moo mujj a pare ci cumukaay tayit it daanaka gis nañ ni taxawaayam desoon na bu baax a baax loolee taxit daanaka ki nga xam ne taxawaayam mët na sëkk di ëmm seen dof du wér yaakaar naa ne fi mu toll nii ah, faj na Sa Thiès ba wér yeneen information ci kanam tuuti loolu am jàngat la ah, danañ ko gën a yaatal ci vidéo boo xam ne danañ ci belli lépp loo xam ne war naa mën a am ca combat be bu ko defee ñu mën koo faram-fàccee loolee dana nekk ci informatinal ci ci Aladji Malick TV